ragaluma ko ginnaawam waaye di imam Moussa wax léegi dem nañ wattandiku sëtu yonent yi de man mii sax nañ ma wattandiku ndax ci laa bokk ah caaxaan baaxul nañ ma wattandiku de asalaamaaleykum Thierno Malick Hamid maa ngi lay ziar naka coono yi naka activité yi sa tontu li nga tontu Ibrahima Diallo Deglu nañu ko amna solo Ibrahima Diallo dafa dafa yamul plaasam xamul boppam it Ibrahima Diallo ñun xam nañ ko Ibrahima Diallo polar la koku ñepp ko xam Ibrahima Diallo du shérif musta nek shérif té limu def nak c'est très dangereux parce que moy liñ wax imposteur ci nasaran lañ koy wax mom mi ngi fonto maulana Cheikh Hamid sar te Cheikh Hamid sar du mom ci dara du ci zahir du ci batin yemuñu sax nag wax dëgg yàlla ci classe bu ñuy daw waaye ñun ci suñu wàll bopp ñun ñooy ki nga xamante ñun ñooy wax ak moom waaw ñun ñii nga xam ñooy taalibe Cheikh Abdoul Hamid yi ñooy wax ak moom waaw li ma lay sànni rek lu gàtt la Malick soo jógee nga sànni ko Ibrahima jàlloo Ibrahima jàlloo nga koy sànni pour mu xam boppam xëy na gis na xadiis bi xëy na mën na ko bañ a gis parce que jàngul loolu moom moo ci nekk yooyu li yurti wóor mooy bu fekkoon gis na xadis bi war naa xam ni moom askanoo ci ku dul sa baay musiba la yonent bi dafa ni wa man iddaa képp koo xamante ni dañu ko woowee bi maanaa dañu ko askane ila xayri abihi jëmale ko ci ku dul baayam lii mi ngi ci saxiixul muslim képp ku nu woowee askane ko jëmale ko ci ku dul baayam maanaam nit ki bu askanoo ci ku baayam mu jël santu jàmbur awintama ila gayri mawalihi wala boog ñu askane ko jëmale ko ci kudul mbaa yàlla maanaam kudul kilifaam xëy na jaam la mu am sang te askane wuñ ko ci sangam sangam joxuñu ko kilifteef gi képp ku jël sant waneen sant wudul sa sant baay comme li Ibrahima jàlloo def sant Diallo santale boppam dara dem ba yàgg mu santale boppam Atijaan yi lépp ci ay fen kooku yonent bi nee na fa war na ci kooku def loolu laanatullahi rëbb buur yàlla kooku yàlla rëbb na ko wal malaikati ak malayka yi wan naasi ak nit ñi ajmaina ñoom ñëpp rëbb nañu ko kon Ibrahima jàllo yàlla rëbb na ko malayka yi rëbb ko nit ñi rëbb ko te la ca gën a doy war mooy laa yaqbalu llahu minhu yàlla du ko nangul ñeel ko du ko nangul ñeel ko yawmal qiyaamati ëllëg bisub taxawaay ba sarfan benn farata bu mu daan jëf ci kaw suuf walla adlan du càggane bépp benn naafi la bu mu daan def ci kaw suuf kon loolu moo lay firndeel ni Ibrahima jàlloo amul benn cër ci yàlla Cerno Malick Hamid benn cër ci yàlla Ibrahima Diallo amu ko ndax amul benn farata wala benn naafila bu ko yàlla nangul fii ñu nekk ak fa jëm bis penc ndax xadis baa ngi nii moom moo ko wax xadis bi mu ngi ci mu ngi ci muslim na ko seet foofu ci téere boobu moom li mu def bàkkaar gënu koo màgg bàkkaar gënta màgg ci kaw suuf ginnaaw bokkaale yàlla nga askanu ci kudul sa baay te moom santul xaydara santul tijaani kon nag moom lii rek la ñu koy wax na dem jàngi xadis bi mu xool ko boobaat santam bi dana ko jël mu def ko ci boppam te bàyyi di jël sant jàmbur yi di woote ni shérif la ci ay fen yi kese kese kese kese lii la ñu amoon ci luñ koy tontu ñun nag ñoo gën a néew xam-xam ci waa kër Cheikh Abdoul Hamid saar ndéem ñun ñii rek duna moroomam yàlla tere Cheikh Abdoul Hamid Sarr aywa nuyul ma ñëpp Thierno Malick Hamid jërëjëf.